wala quelque part boo fi gis donc boo xamante ne il y a presque une vingtaine d'années dafay tari après hivernage bi mais foofu un village dañ jaay ko c'est presque des hectares et des hectares non exploités parce que benn nawet rek la ñuy def donc au-delà bay nawet bi donc dafa pratiquement rare mooy ñuy def culture maraîchère te ils n'ont pas les moyens pour des ay terres pour exploiter espace bi donc exode am na c' est parce que Téléni Talent la ñun boo fay nekk na espace bu ñu mënee jël mu doon ñu mën a amee espace des centaines de des 500 hectares délivrés jusqu'à présent loolu ñu jiitu il y a 171 hectares délivrés par la municipalité jusqu'à présent loolu ñu jiitu parce que ñu defante ci sama bi ci seen dëkk espace fu sa ko nekk ñu mën ko exploité ñu ndaw ñi dañuy def de seen réew li leen seen réew te bu ñu soxlaa ñu dem di ko di ko di ko di ko góor ndax assez d' espace pour cultiver ñu si ñu assez de parti ñu ko xam dañu dem seen réew. Dañuy laaj non non oh dafa aju de dafa aju. waaye moom ñu koy joxe gi. gars yi dañuy jënd connexion di ba laaj. yow jëloon Mouhamed Fall. dinaa ko jël. Thank you.

Ada bulu-bulu deh. Ang

non non mais sama gars yi yëpp a ñu gerte seen baax a delloo. sama gars yi yëpp a ñu gerte ba xale yi jëndoon moo doon moro bees yëpp lañ delloo. yow yow yow. li ñu fi indi importance bi duñ ko xam kon suñu dégloowee ci lay ëpp cëslaay loolu la ñuy ñaan ñëpp ginaaw bi ñu dalalee suñu président Ousmane Sonko yalla na la yalla taxaw barke yenen tibi dafa am ben aaya bu ma ñor mu nekk ci sóoratu Safi yalla mo ne suñu borom subhanahu wa taala mo ne yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu walaw kariha alkaafiruuna ma ne tey dañoo dund lu metti ci lenn li ngay dund ci réew mi mooy defar nañ ba jekk fii ci biir kër ñu fekk ñu fi tas ko ndax nekku leen ci biir kër nee nañu kën clôturé wu ko ñun amuñu doole bu ñuy clôturé suñu amoon doole dinañ ko clôturé waaye ginnaaw amuñu doole nag noonu la suñu kër mel kon loolu ak xaste la ak saaga la ci ñun loolu dund nañ ko fi tey mais luñ ko xañ-xañ-xañ bu soobee yàlla yàlla indi na la fii tey ni la fi yàlla indee fii tey yàlla la fi yàlla delloo si ngay président de la république mbokki Morolan lii sens la président bu la fi yàlla indi woon tey jëloo benn kàddu lu dul dangaa taxaw ak ñun nga duñu xool ñu di la xool nga duñu xool ñu di la xool nga duñu xool ñu di la xool nga jóg ñibbi jooy nga ñu lii neex nañu yal na yàlla taxawu la bi ci dess moy président ñun buñuy fal nit dañ koy fal ndax projet ken bés bu la yàlla dénkee réew mi bay rek la ñu xam ak sam suñu suuf si tayle nañ ko ba tuñu ci kon way bés bu la ko yàlla dénkee na nga delluwaat ba ci ñun nga paré ko indil ñu ko da nga indil ñu ndox ndax ñu bay li rek lañ lay sax président duñu guddal suñuy tanké fenn dong la moy bu sobé yalla bu soobee yàlla lëpp lu yàlla mën a def ci sa ndoddu lépp lu mu mën a doon ba fooy mën a yem bu soobee yàlla danañ ci ànd ak yow ci biir activité yàlla taxawul asalaamaaleykum kawee doo ko jaar. fii bu hmm? kawee kenn du ko jaar. yoon bi pour ñëw fii. asalaamaaleykum. asalaamaaleykum mbokki Morolan ñu ngi ñu leen di nuyu dileen leen siyaara di leen gërëm ci tertu bi ngeen ñu tertu waaye di leen wax tamit ni am nañu mbégte bu rëy ci teew fii ñu ngi jiital ci nuyoo bi kilifa yi ñu fi fekk ak kim fi togal imam ratib waye di nuyu également oustad sis ni fi jël kàddu léegi di nuyu kilifa yi jigen ñi tok fi di nuyu aussi la jeunesse de Morolan di leen massa bu baax nag ndax bi ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ gan yi gan yi leen yónnee tey te du gan yoo xam ne du gan yoo xam ne yéen a ko laajoon ba ñuy dugg ci dëkk bi gis nañ fi li liñ fi gis ci ay ay kaaru gendarmerie ak ay oto gendarmerie bëri na lool ñu leen koy mastaw nag ndax Oustaz Ciss léegi wax na jaay doole bi ñu leen jaay doole it ba fekk leen seen biir kër ne faw ñu génne leen foofu parce que waru leen fa daje ba di fa dalal Ousmane Sonko. nee nañ ma sax am na ñu fi jaar ay alkaati yu fi jaar di essayer terroriser ndax noonu lañ ko mën a tuddee. Nan munu ñoo japp Ousmane Sonko waye bu fi jaaré ba dem dinañ len ñew jël ci mo ko nak wa Sénégal yépp dégg ko li moy nguru Macky Sall yende wa Morola li ngeen doon xaar ci Macky Sall moy mu défar tali bi li ngeen doon xaar ci Macky Sall moy mu bàyyi leen ak seen souf waye gasal len ay ten jox len engrais ngeen mëna bay waye xare won len ci Macky Sall mu fay yoni ay alkati pour ñu ñew di len menacer xare won len ci Macky Sall mu jël ay centaine d'hectares jox ko wa bitim rew ñu ñew di fi bay di génné wala di wala di jaay ci njëg bo xamné yeen su ngeen bayee seen 2 hectares mu len concurrencer ak ñoñu du li ngeen doon xaar ci Macky Sall Macky Sall fukki at ak ñaar. boo ko doon résumé ci benn kàddu mooy échec total parce gis-gis ak xam-xam bi war a defar réew Macky sal amu ko yàgg naa wax ni ku bëgg a defar Sénégal fii ngay ñëw ci dëkku kaw gi fii ngay defaree réew ndax fii nga mën a bayee fii nga mën a nappee fii nga mën a sàmmee waye fi nga mëna taxawal ay unité industrielle yo xamné suñu bayé ba sap ba sam ba nap ñu transformer ko fi li ma tudd yëpp mënoo ko defee ndakaaru xanaa mën nga nap touti ndakaaru waye do fa bay do fa sam mu jël te mënatoo fa nap ndax jaay na géej gi ndax li xew digënté nap katu kayar yeeg wa ndar yi lan moko andi jaay géej gi ba tay suñuy mol suñu démé bu ñu dellu duñu andi jën kon kuy defar réew da ngay ñëw fi fi ngay ñëw andi investissement yi 1500 milliards yi mu defar ci benn autoroute bo xamné 39 39 km la bu ko andi won ci dekk dekk kaw gi tay Sénégal du ciép du diwlin du suukar du leneen lo xamné ne dañ koy jéggani ci biti te ndaw ñi fi nekk ñepp dinañu liggéey. xaalis bu bëri bi muy jël naan ma ngay tabax ay stade ma ngay defar ay BRT ndakaaru mu ngi représenté 0,5 pour cent du territoire national nga jël 83 83 pour cent économie bi yóbbu ko foofu léegi 99 virgule 99 virgule 5 pour cent du territoire nga bàyyi leen ñu nekk ci ay problème moo taxoon ne léegi exode ñëpp a ngi dem ndakaaru booy defar ndakaaru benn yoon balaa yoon ba di pare lay jóge ci biir senegal di ñëw ndakaaru mooy ëpp li yoon boobu mën a àttal moo tax li ñuy def ni yëpp sànni xaalis la ville nouvelle Diamniadio BRT échangeur autopont euh, euh, terre yooyu yëpp sànni xaalis la tànk que demuñu ci fa nit ñi dëkk ñu fexe ba investir foofu nit ñi toog fa ñu dëkk am fa seen teranga am fa sen kom kom di fa faju di fa jàng loolu rek moy solution motax mané len massa Sénégal yépp lañuy massaw ndax mën na né ñak nañu fukki at ak ñaar ci lo xamné lañ la dénk yow muy nguur pour nga défar réew mi nga jëriño ko ci dal ci nit ñi bak ngon ku ne ma ak yow nga né tay ma tejj ko kaso ku ne ànd maag yow nga ne tey ma pexeel ko gis ngeen li xew barki démb Ngor ñaaw na ñii doole gi ñuy wane fii fan lañ ko doon xaare ci ñoom mooy sàmba boo yéeg day defkatu ñaawteef yi ñu yóbbu ko foofu mais ñëw fekk dëkk bu paisible ku dugg ci dëkk bi xam ni fii fitna amu fi fii bandi amu fi fii amul luñ fi ñëw garde te it li gën a doy waar sama grand frère xalifa Sall ma nga doon def mottali yéenem kenn gisul benn kaaru gendarmerie bu ko topp Malick Gakou ngi def ay tournéem kenn gisul benn pick-up gendarmerie bu ko topp keneen ak keneen moom Macky Sall saa su ko neexee mu dugg ci dëkk bi ne day def def tournée économique waaye lan moo waral Ousmane Sonko moom saa su jógee rek ñu yenu armée nationale yépp ne topp leen Ousmane Sonko lan moo may wax nag may wax nag ni koo xam ne juróomi at ak lu tegu yaa ngi koy essayer pexeel ak xoqatal mënaloo ko dara Macky Sall bu dese woon tuuti xel dina xam ni man du ma ragal bu ko man ma ragal te amul ragal bu ànd ak man est waa Morolan da ragal ba tax nag dégg naa liñ fi wax ci kaddu problème la mooy problème mu Taïba Ndiaye mooy te problème mu Daaru Xuddus mooy problème mu Meewaan mooy problème mu Kañobo mooy problème mu Nooto mooy problème mu Podor mooy problème mu Fatick mooy problème mu fépp kon su may wax li wax dama koy maasaale li tax ngeen top ci ñun li tax ngeen dalal ñun ni ngeen ñu dalalee ah gaw ma ni bëri na ay leader politique yo xam buñ fi ñëwoon dinañ am bi tertu te li ngeen li ngeen topé ci ñun du xaaliss buñ leen jox du diggé yuñ leen def waaye ay borom xel ngeen tok ngeen deglu setlu le ba xamni ni ñu gis ak li ñu deg li wara soppi rew mi ci li lay joge lolo tax ngeen and ak ñun ñi xex boobu ba legi fukki wer nak mo dess fukki wer xam nga fukki bari wu fukki wer mo dess pour ñu démarrer suñu révolution bi ñu bëgg commencer fi Sénégal mu law nak dem Afrique yépp fukki wer mo ci dess ma bëgg len nak ñaan Nous, ñun sénégalais ci li weesu dafa mel ni ñun mënuñoo xeex ñun mënuñoo xeex ndax ñaar ba ñett léeg fi ñuy xeexee ba jege résultat fa la nit ñi di wàccee seen loxo ñaareel bi bu dina am lenn ci gaay yu wëlbatiku il faut ñu am le sens du sacrifice yagna naa wax ni man boudé sama jëm ji la wara a pour Sénégal bax définitivement taylé naa ko ba paré ba tax nak ma bëgg lima bëgg lima bëgg ñu bokk ñun ñëpp def moy fukki wër yi ku yaakaar ni fukki weer tëdd nelaw la da ngay nax sa bop fukki wëru résistance la résistance nak jeunesse Sénégal bi yëpp ñoko wara bokk. mag ñii ñi ngi ñaan ñu génn ci mbedd mi waaye ñi ngi yor seen kurus di ñaan waaye ndaw Sénégal laa bëgg wax xam ngeen ni dix mois di ñëw mooy déterminer seen avenir pour cent cinquante ans yi ñëw est-ce di ngeen seetaan Macky Sall ak gendarmerie ak police ak ay magistrat am yàq loolu di ngeen ko nangu moo tax nag bu bu takku jotee ñun ñëpp nañu ànd takku ku ci mëna dem Dakar na dem Dakaru waaye ñun ñep nañu taku jakar lok Macky Sall ak ay pexem lolu moy li nga xamne ne seen la bu ngeen ko defé nak mën na leen watal fi ma tok ni Senegal yalla defal nañu lepp pour ñu développer ba mu des njit ñu baax lepp nga fi ñaan yaangi fi geej jaangi fi zircon baangi fi pétrole baangi fi phosphate baangi fi gaz baa petrol fi pétrole baa fi souf suñu mëna bayangi fi lan mo fi manké est-ce xam ngeen ni France amul li mo wax France fi la koy outsé lii rep France amu ko peut-être amna na de amul petrol, amul gaz amul zircon amul li mo wax yépp fi la koy outsé ñi ñuy nogatu bo ba légui di jël suñu alal di ko bitim rew té ñun suñu ndaw bu ñu bëggee bitim rew ñu neen du ngeen fi yegsi est-ce que mën ngeen continuer lii mooy li ñu waxanteeg yéen bu ñu yeggalee ba dix mois yàlla def li muy def suuf suñ fi nangu woon ci jàmbur parce que suuf réew waa réew maa ko moom suufu gox waa gox baa ko moom ku leen di jàppale da ngay ñëw jàppale leen ci defar ay teen jox leen engrais may leen ay machine ñu liggéey am seen autonomie waaye kenn di leen jàppale ci dagg seen suuf di ko jox waa bitim réew kon lii mooy li ñu war a séq ñun ñëpp defe naa nag daanaka benn fan walla ñaar moo des ci inscription yi ndaw bu e- gis nañu mobilisation ndaw ñi ñoom foogoon nañ ni buñ ko defee 20 jours ndaw ñi dañuy découragé ba ñu dem bindu ji waaye gis nañu ndaw ñi ni ñu demee song ji lieu de yi ñu ngi leen di ñaan su fii ci mbooloo mi ak ñi ñuy déglu ci Sénégal yépp nag ndax ay direct la ñuy def bu amee benn ndaw bu am 18 bindoogul te gëm ni projet bi war a changer réew mi mooy projet bii bu mardee ngir yàlla nañu jóg ñoom ñépp dem bindu ji parce que balaa nga naan naam ne fa balaa nga naan naam ne fa no bëgg bëgg changement te bésu sanni carte démo sanni carte amul njëriñ ñuy daanel nak di leen gëreum di wax démb lañu waron door tourner bi fi galankor am am na ay programme yu ñu fi invité won comme tiant bi fo am borom tiant bi ñu ngi leen di jéggalu ci ñaka tew bi waye bu soobe yalla dinañ ko dabu benen yoon waye lepp lu ngeen fi ñaan yalla nako yalla nangu kon ñuy gërëm waa Morolan yëpp comme bërëb bi ñu war a dem dafa bëri kontaan nañ ci ñëw bi ndax ñëw bi dafa am ñaari solo ba ñett bu ci njëkk mooy suñu ndaw ñii toogal ñu fii te ñu leen koy dénkaat bu baax moom ak ñi muy liggéeyal ñëpp nag moom Mouhamed Fall ñëw gi da leen di gën a yokku légitimité ndax yàgg na ci gox bi boobu gisuma xamuma di dox di dugg ci kër yi di wax ci Pastef ba tey waa Morolan li ci ëpp Pastef nek sen deun kon suñu ñëwé fi dañoo ñëw pour delloo ko jukkal momit ak ñi muy liggéeyal ñoom ñëpp ñaaral bi ñaaral bi moy ñëw ak wa commune de Morola parce que di dégg Sonko diko ko gis ci télé baxna am cofeel ci mom baxna waye waaye ak mom mu ñëw ba ci sa dëkk parce que nit amul luddul dëkkam kon lolu solo la ci mbir mit kon kontaan nañ ci ñu ngi leen teer ñi ngeen ñu teeroo ñu ngi ñaan yàlla mu def fi jàmm yokk ko def jàmm ci Sénégal yokk ko yàlla may ñu ñu egg 2024 ci jàmm te 2024 waxuma la 18 heures de parce que xam nga élection moom ku dugg di voté boo gisee bulletin yi ci suuf di nga xam ban bulletin moo bëri ci biir midi bu ñu eggee midi ku nekk Sénégal xam ni mbir mi ferenkulaay na te prochain président de la république du Sénégal mu ngi tudd Ousmane Sonko maa ngi leen gërëm Damn, hey, boy, boy, boy, boy. I'm telling you, I'm telling you. mbokk yi comme ngeen ko gisee le président Ousmane Sonko tàmbaliwaat li nga xamante ne moom mooy nemmeeku tour bi mu tàmbalee ko nag fii si commune bu morola gannaaw ba mu waxtaanee ak askan wi ñi génn di saafonteeg moom ndaw ñi mag ak ndaw ñëpp ndiraan di ko topp Thank you. ndeysaan mag ñi mag ak ndaw ñëpp taxaw ngir euh, saafonte ak ki nga xamante ne mooy le président Ousmane Sonko. accompagner le futur président de la République de tous les Sénégalais le 25 février 2024. kon ñi ñii ni taxaw di ko Corona itu tahu proyek tuh apa arah malah. Corona itu tahu proyek tuh apa arah malah. Gol. Amin presi. Go go go go go go. kon mbokk yi ñu ngi leen jox euh, dig daje ci beneen étape Nemmeeku Tour bi incha allah.